xam ne moo di golf fekk fi nag kenn koo xam ne tey tey moom ak Balla Gaye ñaar kenn lan mu nit ku am personnalité nit ku dëggu nit ku gore nit ku mën a jox doomu aadama wàccuwaayam buur ginnaaw bi la nuyoo di la ma saw di la jaal li bokk ndax lees ni mu juree Balla ni la la juree bëggoon am ay kàddu ci digganteeg sa wéjur wi dem. Fadel ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñu nga seqal presse bi yëpp di wax rek xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci sunu waajur wu tedd wi fi bàyyi ko di Mouhamadou Sakho ñu gën koo xam ci lees mu doona nag nit ku yàlla sunu borom baaxal doona nit koo xam ni jullit àqan la woon nga xam ni imaam yi seede nañ ko léegi te ñu nit xam nañ ci dara ndax ni mu juree Malal Sakho jure ni Balla ak njaboot gi noonu la ñu jure daanaa wéet ak moom ci néeg di waxtaan ak moom ci lu bëree bëri ci njaboot gi mu doonan nit ku yaatu doonan borom xol bu sell doonan nit koo xam ni mboolem ku dëkk Route de ba ci géejaway gii fa tabaarakallaa wërsëgam daa nga ko lekk ndax bu koor gi musaana taru daana jël ay saaku sukkar di ko dugal ci néegu yàlla yi di ko dugal ci kër doomu aadama yi ngir ñu barkeeloo ko daana dafit lu mel nii tey dal ci kawam nga xam ni kullu nafsin saayixatil mawti kan bu mustu di nga mus dee dëj daana am mu dem génne alalam dem jënd ak ndawal gu day yóbbu ko fa te du bëgg kenn ku ko wax kooku nag moo fi bàyyi koo tey di bànqaas bu mag ci biir sport rawatina méccam làmb séqan ko ak yéen kon ñoo ngi leen koy jaale yéen di ko jaale àdduna di ko jaale Sénégal diggante Balla ak wéjuram nga am loo ci xam lu bari ndax keroog bu ko Balla di jox oto bi ak un million sa loxo lañ ko teg. waaw xam naa dañu nekk ci dëgg rek tax na lu baree bari sax bëgguñu koon wax waaye Serigne Mansour si borom daara gi daana wax ni baadoo la mënta weesu loo ko defal mu uufi lex yorub deq ni maa ko yeyoo ku doomu aadama doo gërëm yàlla kon Balla bu toppee ci ay ginnaaw yu magam nekkan digganteem ak waajuram. oto ba fa tabaarakallaahu liñ ci xam bari na Ayda Njaay badaloo yal na yàlla yokk ay leeram moo ko jaayan Balla mu tollan ci ay millions yu bëree baree bari keroog ba ko Balla waree ñu ànd man ak moom mu taal clim bi dafa freiné ma ne ko mbër lan la mu ne ma bii oto mérité wu ma ko ne ko lan nga bëgg a wax mu ne ma kaay jël oto bi yóbbul ko sama papa àndal ak Sa Thiès keroog un million la yëkkati boole koog caabi ji ak kayitu oto bi ci sama loxo la ko teg te nak duma sédé luma xamul ndax wama saytna ila naa ilaa ma alim naa lu mu dama koy fekk kérok maa ko fekk ci garam place bi mom mënta woon a wax sama tour bour géwél ji mënu ko na wax bouru rek lay wax bouru bouru ñewati nga lu xew ma ko dama la soxla mune ma waxal fi ma ko kër ga la la soxla ñu ag kër ga sa dom moma yoni ci yow mune ma waxal rek yag na la yoni ko am numa mune ma kon Bismillah. ma yëkkati caabi oto bi tekki ci loxoom jël kayit tekki teg ci loxoom yëkkati un million teg loxoom ni ko oto bi la andi fii Balla sa doom moo la ko jox. nee na nag ñaanul yàlla yem ak yow fii dafa bëgg nga ñaanal ko ngir mu yokk ci fand bu ne mu sëgg siggi jooy jooy lu yàgg ñama ma buuru ma ne ko mbàkke mu ne ma jooy yi ma jooy jooy mbégte la lii ma Omar defal. rëy na lool dinaa ko ñaanal waaye nee ko maa ngi koy fàttali lenn moo xam ma fekke wala ma ñàkk fekke neel Omar dénk naa ko sama njaboot neel Omar dénk naa ko malal saaxu magam neel Omar na malal saaxu jiitu mu topp ci ginnaawam mu uuf ay rakkam ñoom saa ak jigéen ñi ak ñëpp loolee nag kon bis bi la bàyyi woon xel tey jii kon Fadel diggante Omar ak papam yaatu na ndax bu tabaski mosaan a ñëw balaa Balla Gaye jëndum xaram xarum papaam lay jënd Balla da daan woo ay téer yebal leen ci papam ñu jëlal ko ay mesures ñewal ko yu rafet rafet. adduna nag dafa baaxoo loo xam ni surtout sport ña cay wax lañ cay xam sax du nu bari waaye diggante doom la woon daal ak baay boo xam ni papa ji gërëm na doom ji. waaye doom ji liggéeyal na papa ji doom ji liggéeyal na àdduna kon ku ñëw ci bis bii gis ni presse bi taxawee nga xam ni fa tabaarakallaahu ki dem baax na waaye ki mu bàyyeet baax na ndax dañuy wax ni yoonu xabru yi bu mokkee rumbux ki dem baax na waaye sigil ndigaal ak sigil sa wàll bu baree ñi mu bàyyi baax na kon malal baax na waaye Balla Gaye 2 mii ñu ko defee biir këram njaboot gi wuy ko imaam yi wuy ko mbokk yi wuy si ko kon gàcce ngalaama bal di ñaanat rek ci sunu waajur wi fi bayiko dal yalla nako suñu sunu borom teru, yalla nako yalla teral yalla na hajjana firdausi don kërëm ci barke sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam ci barke Cheikh Ahmad Bamba borom Touba. Fini daanel suñu sunu kaddu nak. di ko wat ahlu lamb gi yeb di ko wat president Macky Sall waye di ko domam xaritam sopem delluwaat doon papa ci Balla delluwaat doon mag ci Balla muy Abdoul Aziz Ndiaye moom alhaaji ale mboolem ku taxaw fii te xaman démb ak tey war nga koo jaale Abdoul fore naa sax ci wewu béy nii est-ce que Abdoul Aziz du baas ay baas te buntu këram ray ay nag toj ko togg ko ci ay mana ñu ne ko Abdoul Aziz loo xewle mu ne sama baay Mouhamadou Sakho Doubalès moo fi bàyyi ko kon dama koy ñaanal ndax doom laa ma ne ko su boobaa soo ko defee wàcc nga te ku fa ñëw ni la siggil ndigaale nga ne ko siggil sa wàll war na ndax doom la ci Muhammadu mag la ci Balla te digganteem mag Balla yéen ñii di waa presse bi yéen ñu gën a xam taxaw na Balla yiir na Balla suturaal na Balla waaye Ballaat nungul na ko topp na ko kon yàlla na ànd bi sax ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam Fadel maa ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla mu guddal saw fan ak mboolem ñi nga seqal liggéey bi sa taxawaay ci ahlu lamb sa taxawaay ci social sa taxawaay ci réew mi ñëpp a ngi koy bàyyi xel kon ñii nga seqal liggéey bi seen diggante rafet yàlla na sax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi fii ci nga xam ne moo di golf foofu sunu bi ñu fi muy kenn ku àdduna sunu papa di Double Less waaye ñu fekk fi kenn fi njaboot gi koo xam ne euh, ni Double Less juree Balla Gaye 2 nii la ko juree ndax euh, bari na ay couleur yu dox seen diggante muy Jules Balde Jules ginnaaw bi ñu leen yóddee la ma saw di la jàll bokk. bëggoon am ay kàddu seede ci sa diggante ak sa wéjur wi dem. waaw ban sant yàlla jul sant bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëñ Atex Mbacke yàlla na fi ñu yàgg te wér sant njaboot suñu Tuubaa gépp waaw Père Double Less moom suñu papa la te ñun def nekkee booy waaye ñu nekkam moom loolu dafa yàgg te du tey boobu ñoom Balla Gaye sa judduwuñu waaw maa doon toog si mikaayam sama si doon toog. ñu gis ne am na kuréel gu bari gu dox seen diggante ca wéjuree la woon waaye lan moo la gën a mark ca wéjur woowu. waaw mooy dafa dëggaloon dafa dëggaloon sama papa sama papa nijaay la si moom da ko dëggaloon waaw lu muy def lu ne dina waxtaan dañoo waxtaan ak moom jox ko cër waaw. yan souvenir nga am waaw mooy li ma conseil moo doon conseil rek xale yi yaa fi des ñun ñu suñu suñu waay wéy na yaa fi des xale yi neen topp sa ginnaaw rek loo leen diggal ñu def ko loo leen ñu bàyyi. boo amoon leneen lay dolli njaboot gi fi bàyyi ci wàllu ndénkaane ñu gën a sàmm booloo doon benn lan lay doon. waaye njaboot bi comme li paa bi wax rek nañu nañu wéyee loolu rek comme moo xam ne mag moo jiitu rek ñu des topp si lu mu leen digal ñu def lu mu leen tere ñu bàyyi loolu laa gis ko loo koy waaw yal na ko yàlla xare àjjana fi daw si si barke borom Touba yal na ko yàlla xare àjjana waaw yal na ko yàlla xare àjjana. jërëjëf